dafa amoon kenn nit ku amoon ñaari jabar ku nekk ci ñoom am jenn doom ju jigéen yàlla def mu am jenn jabar ju dee bàyyi fi doomam ñaari xale yu jigéen yi ñoo bokk tur ndax ñu mën leen a xàmmee ñu leen di ràññee kumba am ndey xale bi yaayam di dund kumba amul ndey xale bi yaayam dee boroom kër gi nag dafa ragal jabar ji lool ba xam ne lu mu def wala lu mu wax rekk neex na ko na sax paayi jabar ji muy defloo kumba amul ndey liggéeyu kër gi yépp am bés kumba amul ndey di raxas ndab yi ba fàtte as koog wujju yaay ji ne ko mu dem raxasi ko géeju ndaayaan kumba aw ci yoon wi di wéy di dem dox ñaari bëccëg ak ñaari guddi kumba di dox di dox ba fekk genn siddéem guy bàcc boppam mu sukk nuyu ko siddéem gi laaj ko moo xale bu yaru bii foo jëm kumba ne ko sama wujj yaay moom raxasloo ji xokk bii géeju ndaayaan siddéem gi tibb siddéemam may ko ba noppi ne ko foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu kumba gërëm ko daldi aw yoonam mu dellu di dox di dox ba fekk cin luy togg boppam kumba amul ndey sukk nuyu ko cin li ne ko moo xale bu yaru bii foo jëm kumba tontu ko sama wujju yaay moo ma raxasloo ji kopp bi géeju ndaayaan cin li tibb ci li muy togg jox ko ba noppi né ko foo jublu doom yàlla na fa yiwu yàlla jublu kumba lekk ba suur gërëm ko daldi aw kumba amul ndey di dox di dox ba fekk jenn jigéen ju màggata a màggat soxna si daal benn tànk la am benn loxo benn bët benn baaraam kumba sukk nuyu ko soxna si laaj ko moom sama sët foo jëm kumba amul ndey ne ko man de sama wujj yaay moom ma raxasloo ji kokk gi géeju ndaayaan soxna si daldi koy jox ay yax yu weex tàll kumba waxul dara mu daldi leen a jël def ci biir cin li cin li fees dell ak yàpp soxna si dellu joxaat ko benn peppu dugub kumba def ko ci biir gënn gi gënn gi fees dell kumba waxul dara mu jël def ci biir cin li nees tuuti mu yàq ñoom ñaar ñu lekk bi ñu noppee soxna si ne ko kumbakaay nag raxasi ndab yeeg sa kokk boobule bala moo guddi bi kumba dellusee mu jox ko benn puso ak genn ràbbu ne ko demal nga dugg ci ronu lal bi ndax sama doom yi yépp ay rabi àll lañu puso bii nga koy jam rab yu ndaw yi ràbbu gi nga di ko jam rab yu mag yi ndax ñu teel a dem dama bañ ñu rey la bi doomu soxna si ñëwee bukki mi nga xam ni moo ci gën a sob daldi ne yaay daal nit a ngi xeeñ ci néeg bi soxna si ne ko xale bi demal nelawi man rekk maa fi nit xanaa danga ma bëgg lekk léegi bi rab yi tëddee kumba di ràbbu geeg puso bi mu mel ni ay màtt ñoo nekk ci lal bi xale yi di jéem a mënuñoo nelaw ñu daldi génn dem seen yoon kumba daldi génn soxna si né ko ñëwal waaj ñibbi mu jox ko ñetti nen ba noppi né ko bii soo demee ba ci biir àll bi nga toj ko bii soo demee ba seen sa dëkk nga toj ko bii soo demee ba ci buntu dëkk bi nga toj ko bu leen jaawaale demal foo jublu yàlla na fa yàlla jublu kumba sukk nuyu ko gërëm ko daldi aw yoonam wi di dox di dox ba ci biir àll bi mu toj benn nen ay gaynde ay ségg rabi àll yu bari génn ci ndax ñu yiir ko ba dara du ko mën a laal kumba dellu di dox di dox ba seen dëkk ba mu jóge woon mu toj beneen nen ay boroomi fas yu yore fetal génn ci ñu rey gaynde yeeg rabi àll yi yépp kumba di dox di dox nag bay bëgg a dugg seen dëkk mu toj beneen nen bi ci des ay dag yu bare yorey ndënd di tëgg génn ak yeneen yu yenn ay saakuy xaalis saakuy ngalam ak ay nag yu bari kumba daal bi muy dugg ci biir dëkk bi mu ngi niroog buur nit ñépp génn di ko seetaan yaayu kumba am ndey ruusa ruus ba mënu koo muñ mu ne doom ji xoolal kumba amul ndey li mu am yow nga toog fii rek ciw demal wuti ko yow itam kumba am ndey daldi dem moom itam di dox di dox ba am ñaari bëccëg ak ñaari guddi ci àll bi muy dox ba gis ab déem kuy bàcc boppam mu daldi ne laay laa man de masumaa gis lii déem guy bàcc boppam lii de su ma ko waxee kenn du ma gëm moo déem gi doo may ci déem yi si déem gi bañ ne ko foo jublu yàlla bu fa yiwu yàlla jublu kumba itam di dem di dem ba gis cin luy togg boppam mu daldi ne ndax man damay bëgg waaru cin luy togg boppam lii dey kenn mësu koo gis cin li ne ko xale bi réew nga demal sa yoon te foo jublu bu fa yiwu yàlla jublu kumba di dox di dox ba fekk jenn jigéen ju màggat mu toog jigéen ji màggat bu weex tàll te it benn tànk la am benn loxo benn bët benn nopp kumba itam nekk xale bu réew bu kenn yarut mu ne soxna si xanaa yoroo nit benn tànk benn loxo benn bët benn nopp man day waaru naa soxna si ne ko moo xale bi yow réew nga di waaw lu doon say tànk sax kumba daldi koy tontu man géeju ndaayaan laa jëm lan la woon soxna si jox ko ay yax yu weex tàll ndax mu raxas leen def ci cin li kumba ne ko waaw lii kenn da koy lekk mënuma ko de soxna si dellu jox ko benn peppu dugub ndax mu sebet ko def ci cin li kumba ne ko xanaa yow amuloo dara kuy sebet benn peppu dugub lii duma ko def ndax mësuma koo gis soxna si defal boppam lépp ñu lekk ba noppi kumba dem raxasi yi soxna si jox ko benn puso ak genn ràbb ndax mu ciy jam ay doomam kumba itam di leen jam ba ñoom ñépp di nàcc doomi soxna si sax bi ñuy génn dañu doon daw soxna si jox ko ñetti nen tegtal ko ni mu leen war a tojee ba noppi ne ko demal foo jublu yàlla bu fa yiwu yàlla jublu kumba itam aw wi ba mu waree toj nen yi mu jaawaale leen mu toj ñetteelu nen bi ay nag yu bare génn rekk daw wutali ko dal ci kawam daldi koy rey tan yi doon naaw daldi koy séen tong ci kawam daldi koy lekk ba mu des xol ba rekk tan yi daldi koy jël naaw moom ba ca seen dëkk te naan xale ba demoon géeju ndaayaan xol bank ngi nii